salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci dëkk bu ñuy wax Taïba mbay tey nag eh, li waral taxawaay Gueoulart TV tey dafa am am lu solo loo xam ne tey jii fii lañ koy def fii ci ba mbay muy cant gi nga xam ne moom la fi sëñ Seexuna di def di ko defal ki nga xam ne mooy Cheikh Rafal di maamam moom lay def fii tey ci Taïba mbay ànd koog waa Taïba Mbaye ci bis bi nga xam ne tey jii. mooy samedi ji lañ koy fas yéene def muy suba tey nag ñu nekk ci àjjuma ji di la huit nekk ci li nga xam ne mooy wàccaay gi ànd ko Gueoulart Art lépp loo xam ne rek euh, dana xew ci wàccaay yi nga xam ne moom la ñuy ñëw fii ci Taïba Mbaye muy deuxième édition bi nga xam ne moom la sëñ Cheikh Naar di def fii di ko defal Cheikh Rafal di maamam moom la ñuy ñëw dugg ci biir euh, askan wi taataan seen kàddu naka la ñuy dooree li nga xam ne tey jii mooy euh, bis bi nga xam ne moom la ñuy dëmmal di samedi ngeen ànd koog waa Gueoulart TV kon ñu dugg ci askan wi laaj leen li nga xam ne tey euh, wàccaay yi nga xam ne moom la ñuy def fii tey ci li nga xam ne mooy tey mbay kon ñu topp Gueoulart TV ñu dugg ci biir askan yi euh, taataan seen kàddu ci li nga xam ne mooy bis bii tey ci euh, ci nga xam ne mooy wàccaay gi nga xam ne tey mooy wàccaay tey nga xam ne mooy bis bi tey ñu janoog ki nga xam ne sëñ Andala moom lañ jël noonu ñu fekk mu taxaw ci buntu kër ki nga xam ne moom mooy sëñ bi sëñ Andala ñu ngi lay nuyu waaw ah, Alpha maa lay fay nakay tey signal tey ñu teew ci li nga xam ne tey mooy wàccaay gi nga xam ne moom la ñuy def fii ci Taïba Mbaye tey suba ñu war ko euh, def muy cant gi nga xam ne mooy deuxième édition bi nga xam ne gis nañu moom la def tey ñu bay gis nga sës rëkk bi tey ngeen sóoba léegi ngeen nekk ci di wàccaay yi tey naka ngeen di doore li nga xam ne mooy euh, programme bi ñu dem suba programme bi daal suba incha allah dina ndax sëriñ bi moom li war a def lépp def na ko pare ne bis bi ci war a def lépp taxaw na ba pare boo xamee si li ci war a dem ci wàllu finance lépp tege na li nga xam si moom la sëriñ bi séex ak ngir li ñuy xaar daal mooy gan ñëpp est-ce que ndax gan ñi commencé nañu ñoom ñëpp est-ce que bu subaa bu ñu xëyee ñu dugg ci liggéey bi te bu soobee yàlla ni nga xam ne bis bi na ko mel ren moo ko ëpp fopp moo ko mel bu dee consultation gratuite bi ñi nga xam ne si ñoo ko def ñu ngi est-ce kees bu ñu ñëwee Tiwaawan la nekk bu ñu ñëwee Tiwaawan fa lañ dal bu ñu xëyee ñoom ñëpp daan ñëw fii pour taxaw nga xam si consultation ba sëriñ bi lu mu néew ne ay millions dana ci dem yoo xam ne ci def ci wàllu garab yi ndax buñ la consulter ba pare nuy continuer suivre la daal lay jox garab yi nga xam si moom nga war a jël te doo fay dara te daaw lu mu néew néew 800 personnes consulter na leen fi te sëñ bi nee ren dana këpp mu dee ci wàllu traditionnel muy fajam wolof bee sëñ bi incha am na ci ñoo xam ci daanu xool ñi nga xam ci ci wàllu boobu loolu ñu jox leen seen i accompagner leen sëriñ bi nga xam si mu am seerafaal bi moom moo ko kanam moom mën na gannaaw mu seen drain nga xam ne bis bi moom fu ñu yaakaar du fa yegg dana dem fu ko raw waaw ndax sëriñ bi xolam may na ko lool ak bëggam si arafaal may na ko loolu ak ni nga xam si moom la ñi ngi ko séqal ñëpp kenn ku nekk sëriñ bi lebal na loo xam si bis bi dana a toll foofu nga xam ne yëngu ci àdduna ak nga xam ne si wàllu diina jëleen yëngu waaw te bis bi daal ñi nga xam nag ñooy sunu télé muy muy Gueoul bi nga xam ne mooy sunu télé nga xam ci ñu ngi joggé ba ngumba and ak ñun nga xam ci aduna fu ñu jëm dañuy and ak ñom ñu doonit kenn ci sëriñ bi ko kóolërate ak sëriñ bi sëriñ bi am lu muy def dum leen fu mu joggé dana leen yene sama télé bala kenn ñew yene ñew jël limay wax def ko paré ci lu muy def yene la koy and ta yene ngeen nangul lool and ko ak mom nag bu waxé ñu sëriñ bi xam ngeen seen cër la ta yene sëriñ bi xam nañ ci mom ngeen bok ngeen and ak mom liggéey bi ñu ñaan suñu télé bi nga xam mo dëkk ngumba ñu dem ba doon télé bu mag ba nga xam fan bëgg mu yegg fa dana fa yegg ta ñi ngi sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal suñu télé bi ak fofu ta dana fa ak inshallah allah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ci kaddu yi nga xam ne yëkëti nga ko fi kon nak ñu ngi eh, dugg ci eh, Euh, fi nga xam ne tey jii mooy euh, mooy mooy mooy mooy gan yi tey ñu gis ñu ñu ñu ñu gis ñu gis ñu gis tey kilifa gi ñu janool moom la sëñ bi dénk lépp loo xam ne wàllu presse la rek bu teew fii ci li nga xam ne mooy Taïba Mbaye moom la ko sëñ bi dénk mu yore ñi nga xam ne ñooy euh, presse bi tey mu tax taxu am solo ci li nga xam ne presse bi tey ñu janoog yow ñu nekk ci wàccaay wi war a jëm suba ci li nga xam ne mooy deuxième édition bi nga xam ne moom ngeen di def tey tey taxawaay ngeen fas yéene taxaw tey ci ndorteel gi nga xam ne moom ñuy dorteel édition bi nga xam ne moom la ñuy def suba

très franchement ndax jamono dafa toll fi toll léegi ni aduna bi mën lek communication moo yor bataille boo jëm rek ça se gagne avec la communication te yéen kon bu ko ñëwee di jàpp si loolu yaakaar vous nous permettez vraiment de gagner le pari de la communication et lool très franchement mënuñu leen ko fay. bu dee euh, sëriñ euh, kii bi nag tiant euh, gi danaka ñing ci dernier virage bi ndax loo préparé depuis 5 mois def tournée yi la ci war kooku war a yëgle nga yëgle ko fa ba tey ñu ni suba la yaakaar le gros du travail a déjà a a été déjà fait et Machallah, donc comme ni nga ko waxee li ñu prévoir def bari na suba la tey déjà am nañ ci benn cant moment bi aussi ziar yaangi fi les marabout ñi ngi ñëw di ziar sëñ bi wa dëkk bi it macha fu nekk ni da nga koy jóge di ziar mo xam mbootaayu jigen la moo association la moo ay parrain la wala ñun wara sargal ñepp ngi ñew déjà donc suba buñu ñu xëyee bu incha allah rabbi euh, bala ma far sa bâche bi dèjà mi ngi fi ñom depuis depuis mercredi ils sont là déjà tay ci goudi lañ wara terminer déjà donc wan la rek dayo bis bi bâche bu nuy bâche pendant trois jours déjà ba mënu mënugul a pare yaakaar lolu euh événement bu toll ni ci le ma gis man xam ko Tivaouane rek la muy gamu Tivaouane mais événement bu ñu toll dans le département man gisuma ko très franchement loolu nag boo amee dañ koy sant sëñ Cheikhouna moom mi jël lépp indil ñu ko ñun waa Taïba donc amuñu fayam tey jii foo dégg ñaan naan Taïba Mbaye Taïba Mbaye mbay donc loolu c'est grâce a à Serigne naa donc euh, suba bu ñu xëy incha allah rabbi ñu commencé activité yi xëy commencé njàngum kaamil bi d'ailleurs commencé nañ ko depuis longtemps donc suba lañ koy àggale jàng xatma bi euh, te liñ bëggoon mooy lim bu tàmbale ci junni jëm kaw bu soobee yàlla bu dee xasida yi moom nan stop lay nekk. durant toute la journée Jang Khas durus la bu dee zikur la même chose 8 heures ba y a une consultation moderne, lay consultation moderne à consultation traditionnelle La des moderne ce sera géré par des médecins dépêchés au niveau national Nous avons ak coordonnateur coordonnatrice soxna Sec, mon indi il y a beaucoup de spécialités comme ni fa en Dao. DAO, on a pu consulter plus de 600 personnes Rennes, nous comptons consulter plus de 1000. voilà ku ci nekk it dañ la saytu euh, bu sa jàngoro laajee garab ñuy envoyé la ci pharmacie bi ñu jox la sa garab bu laajee suivi aussi ñu suivre la bu ñu paree tout le rest des médicaments dañ koy baax ci dëkk bi muy carte de santé bi déjà bi nga xam ne ni maa nekk la trésorier daaw noonu lañ ko defoon tere noonu lañ ko fas yéene defaat bëgg na aussi lu mu ci mobiliser mu def ay ay ay social jëmale ko ci daara yi jëmale ko ci école yi moo xam école française la moo xam école arabe la loolu la am yéen a def ko te dina ko Euh, bu la consultation euh, traditionnelle mom de defal bofam garap la def ci loxol bofam la koy defare ñu ko salam ñu bari xam nañ y a beaucoup de points de vente au niveau national bu dara la bouteille ñing koy ñing koy koy jaay à 8000 francs donc buñ ko jaay 8000 francs nit ñi di jënd doy yaakaar na kon ci limi fajj na ci jabet cette année daf ko dana jabet fatiguement général

ndax bu jëlee alalam def ko ci consultation médicale traditionnelle Cheikh Ibra lay liggéeyal bu jëlee alalam def ko ci consultation médicale moderne Cheikh Ibra lay liggéeyal bu jàngee alcorane Cheikh Ibra lay liggéeyal ndax lépp ci la Cheikh Ibra nekkoon donc mom c'est un acteur de développement njariñu askan bi la njariñu nit ñi la te yaakaar naa waa tay bi aussi xam ne loolu bu am bu baax a baax a baax lépp luñ ci mobiliser ci fond rek ci nit ñi lay delluwaat macha allah loolu moom vraiment euh, euh, lu mat a xam la lim ci def doo ci si wat wax ñu xam nañ ko depuis 5 mois ñi nga and ak mom li def ci ay tournée diko fanan ci àll ñu and nañ moom pendant des nuits di ànd ak mom il a fait pratiquement le tour du Sénégal rien que rek pour yegg yëgle bis bi nit ñi ñëw tout simplement jàppale ko ci sant la gi ñu sant sant maamam ndax Cheikh rek ku ne xam ne war nañ ko sant ndax tay ji bu ñu amé bu kep bépp kilifa bu toj ci kaw taalibe bu toj ci suuf rek Cheikh ibrahim moo ñu moo ñu jàngal lool kon sant ko ñëpp la war xaadir bi tijaan bi murit bi laayen bi ñëpp war a sant Cheikh Ibra ndax daakaar yaakaar naa li mu fi indi mooy lislaam to mooy diine am sab cër teg ko fële nangu cëru jàmbur loolu la Cheikh Ibra ne te taalibe la te buñ ne ak taalibe daanaka mooy li war a téye àdduna bi ndax fu taalibe amul rek dara du fa dox li ngi tubaab yi di bëgg ree ay terme ci ay ay affaire ay affaire de de éthique ay déontologie ay morale yi nga xamante ni daanaka manque gu ko gu ko askan bi manqué wala manque ko leader yi manqué moo téye réew mi ba tax na ñuy wax la corruption la concussion par ci et par là bu taalibe amee rek lu lépp dina deñ te Serigne bi foofu la ñu jëmale kon mun naa ne acteur de l'éducation la ndax yar askan bi moo ko moo ko moo moo ko ñor loolu nag moo tax ñun ñi ngi topp ko ndax boo xoolee sax mën nañ sax la may jox eeru Baye Fall waaye nag moom côté intellectuel bi côté acteur développement bi ñu lool lañ koy toppee voilà dëgg la ñu ngi leen mhm. jaajëf bu baax ngeen dégg kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa muy kàddu yu am solo moom nag moo yore képp koo xam ne presse la rek moom la ko sëñ bi dénk kon ñu jàll ci biir xool lu lu lu am solo la tey muy seen taxawaay boo xam ne fii li nga xam ne tey mooy wàccaay li nga xam ne mooy bis bi ñu jëmmal ko muy suba di deuxième édition bi tey ñu gis ne fan yëpp yéen a ngi nekk ànd ak sëñ bi ci liggéey bi tey ñu gis leen tey ngeen nekk fi tey naka ngeen dooree tey euh, liggéey bi ne moom bi ñuy sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen sant yéen waa Géwal Art TV di leen màggal bu baax di waxaat nag jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaro lakk moom Cheikh Ibrahima Fall jëmm ji woote li nag lii rek la moo ko war te lii rek la war a woote ndeysaan yàlla dañoo boole nag wax dëgg yàlla mu yàgg lool ñu dala ànd bu yàgg lool gisuñu ci moom lu dul mbaax lu dul jullite lu dul dina wax woon ci yoon bu baax kon bu war nañ ci ànd ak moom xam naa trois mois wala quatre mois avant boobu ba léegi ñuy ànd ak moom di dem ay tournée di wër fu ne sonn ci lool nag te jaral nañu ko nag tamit ndax lu muy laaj tamit ñoo ngi moom dinañ ko ànd incha allah ci kàttanu ak yàlla jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati ngeen ko fi ngeen dégg mbokk talibé yi kàddu yi nga xam ne moom la ñu seedal ki nga xam ne mooy sëñ bi muy euh, kàddu goo xam ne tey gis nañu ne bis bi niñ ko fonke ak moom ànd ko ak moom euh, di liggéey di yëkkatindoo tegandoo ngeen gis euh, lii nga xam ne tey askan wi teew ñoom dañ ci jàpp ba nga xam ne dana mucc ayib fan yëpp ñoom it ñu ngi fi nekk ci waañ wi ngeen gis leen noonu suñu mbokki jigéen ñi nga xam ne lu nit di def rek ñoom it dañ ci daal di jàpp ci bis bi nga xam ne tey moom la ñu jagleel fi nga xam ne tey ji moom mooy euh, euh, sëñ Seexuna ngeen gis leen noonu suñu yaay yaa ngi noonu nekk ci liggéey bi ñi raxas ay ganaar ñi ngi koy raxas ngeen gis leen noonu ci liggéey bi ñu nekk ñi nga xam ne rek nga ci di ci jàppale muy suñu mbokki jigéen yi ngeen gis leen noonu ñi ngi noonu nekk ci liggéey bi di door liggéey bi nga xam ne tey suba lañ ko fas yéene amal fii muy cant gi nga xam ne moom la sëñ Cheikh na defal maamam di Cheikh Ibrahima Fall ci la ñu nekk nii jigéen ñi nag kenn du leen ci dem tem du des gi des ginnaaw ba leen ci gis ngi leen noonu ñu ngi noonu nekk ci liggéey bi ci suba ba léegi fan yëpp ñu ngi ne ci liggéey bi di ànd ak eh, ñi nga xam ne ñooy góoree ne ci liggéey bi ñoom ñoo nekk noonu ñu ne ci waañ wi ngeen gis leen noonu ñu nekk ci eh, taxawaay bu am solo gis ngeen leen noonu ñu nekk ci liggéey bi euh, ñu ngi noonu nekk ci liggéey bi nekk ci wàccaay wi soxna si tey ñu gis leen ngeen nekk ci wàccaay wi door ci li nga xam ne tey jii mom moy bis bi nga xamne mom lañuy defal fi Cheikh Rafal seigne Cheikh na di def fi ci tay bambay ñu gis ne jigen ngeen bay seen yit yep nek ci tay yan kaddu nga ñuy tay ci bis bi nga xamne mom ngeen di waaj. wa ñu contane rek ci seigne bi xamne ño bok bokk maam maamu cheikh na bu goor ak sama maam bu jigen ño bok nday ak bay ñukoy wax maam do Niang xanaa contane ci rek ci bis bi da xamne ne bëgg a ak mom lepp ci bis bi rek ñu jappal lu nek ñu bàyyi ko ngir bisu seigne bi di ñaanal sun maam xépé ji àjjana ba lepp waral nako fay fekk sëñ bi moom ñoo ngi koy ñaanal léegi lii mu def ci tund ba bi yàlla guddal fanam yokku wéram yokku xéewal yi ba lépp lu muy méba ci tay tund Taïba bi rek yàlla na ko suñu borom àggaleel kontaan nañ ci moom torop ñun ñu toog fii ñëpp ñoo bokk maam ñi ay doomu ndayam lan waaw kontaan ci bis bi yal na yàlla àggale lépp rek. ngeen dégg ngeen dégg soxna si moom it li mu yëkkati fii muy kàddu yu am solo ba léegi ñi nekk ci ñi ngi nekk ci waañ wi nekk ci eh, eh, waañ wi nga xam ne ci la jigéen ñu nekk di euh, toppatoo li nga xam ne mooy xéewal yi jigéen ñi nga xam ne tey ji lépp loo xam ne rek euh, lu fi neexe rek ñoom la lu fi jëfandikoo rek ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo ñoom ñoo ko def muy ñoo xam ne gis nañu seen pasteef ci li nga xam ne mooy bis bi gis nañ seen taxawaay ci bis bi nga xam ne lépp loo xam ne gis na ne nit a ngi ko fii jariñu rek ñoom dañ ciy jàpp euh, soxna si tey ñu fekk leen ngeen ne ci waañ wi ne ci liggéey bi ànd ak góor ñi bañ leen bàyyi lépp lépp ngeen ne ci tey yan kàddu nga yëg tey ci bis bi. xanaa nag li ma leen di waxal mooy leen liggéeyal maam Cheikh Rahim Fall nekk nag ci bis bi jàpp ko ba jeex gan gu ñëw ñu dalal la loolu lañ fi nekk waaw. yan kàddu ngay mottali sa morom jigéen ñi nga bokk liggéey bi. ñun ñëpp ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk liñ bëgg bëgg maam Cheikh Rahim Fall bëgg sëñ bi. moo nu fi baay ñun ñëpp moo nu fi li wut nag yal nañ ko yàlla jox ak ak maam Cheikh Rahim Fall ak borom bis bi jërëjëf jërëjëf waaye dégg soxna yi lañ fi yëkkati ngeen gis ñii ñoo nekk ci ci nii ñii di dëbb ñii ngi waas ñi di def lu ne ñuy jigéen ñoo xam ne tey jàmbar lañu ñii di xolli laaj jigéen ñoo xam ne jàmbar lañu bis bi tey jii wéetuñu ci gis ngeen leen noonu gis ngeen noonu waaw man moom xam nga fu nekk rek dinaa fa dugg xool jigéen ñi ndax ñoom ñoo ñuy jàppale ci toogee gis geen ñii ngi nekk ci waañ yi taal yaa ngi noonu soxna yaa ngi noonu ñii nga xam di waajaruus yi ngeen nekk ci ganaar yi nga xam ne sunu sunu sunu kale yi moom lañ gën a bëgg tey tey yan kàddu nga ñuy wax tey eh, ci taxawaay bi nga xam taxaw ngeen ko ci bis bi. yan kàddu laa ciy wax ah xanaa nag jàpp bu sëñ seexu naa bi rek ndax bés bu gaa defal na ko ñëpp ñëpp la defal kuy murid rek kuy Baay Faal rek sëñ seexu naa tay bi nga xam ne ñëpp ñëpp ñëpp fi leen dëkk bay Dakar ak Pambal ak Nootoog fépp daal ñoo fa daje. turu tay ba yëpp daal ñoo daje fii wax dëgg yàlla di di jàpp ci bis bi. ñu ñaan yalla na mu fi def ay ati ati ati ati ati at ba magat ba rama ba ay domam di ñew fi diko fi def ci diko def ak seen maam fi yalla nako yalla jappalé jàppale faal ñun dañ koy gëreem diko sant yalla yalla na turu wuyu borom seigne Abdourahim Fall moy bayam wax deug yalla ñun moy suñu sëriñ seigne Abdourahim Fall ñun ñun moy suñu sëriñ kon ñun seigne cheikh na bi ñun dañ ci am baal comme dañ dañ ci am day ñew ba suñu kër sama neeg bu diké falay fana waaw deug yalla ñu di ko sant di ko gërëm ñaan yàlla defal ko bu bis bii ya yal na ko yàgg a def faal ñu fekk te taw ba nga dégg kàddu yi nga xam yëkkati na fi ngeen gis ngeen gis jigéen ngeen gis jigéen ndax bis bi mom, ñëpp a ci bokk sëñ Seexu Naar Fall yal na yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam ndax ñun maama ma nga cosaanoo bayit maanaam bu ñëwee fii ngir yàlla ak moom tax di dekkal nag dëkkum maamam kon nag bis bi lu ci waay def dangay ngay ñaan yàlla loo ci def ren bu déwénee yal na gën a yokk ca kaw ca kanam macha allah yal na taxawaayam yàgg daal ñu nag ay yumpaañam lañu waaye dañ jàpp yumpaañ ji dañuy jàpp Baay Faal bi murit ndigal moo ñu fi indi macha allah. jërëjëf jërëjëf ngeen dégg. ngi noonu mi ngi noonu mooy jigéen ñoo xam ne tey mun nañ ne jigéen ñu mën góor lañu. ñaa ngi noonu ñi ne ci xolle bi ñi war a xolle ngi xolle ñi war a euh, kii lépp rek ci ndigal lañ koy defee. tey di ajuma di le 8 décembre 2023 Euh, ñu jëm ci li nga xam ne mooy deuxième édition bi war a nekk samedi euh, le 9 ci lañu war a jëm ngeen gis ñu nekk fii ci takk euh, takkusaan gi nga xam ne mooy ajuma ji jigéen ñi nekk fii ci wàccaay wi ne ci waañ wi di togg jël rek buñ ci jàpp lu dem te ñoom jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñu jàpp ci bu baax a baax mu bis bi tey moom moo xew fii ci tey xanaa bëgg kontaan mm-hmm. ci sëñ Cheikhouna Fall mii mu Cheikh Abdourahim Fall Cheikh Abdourahim Cheikh Modou Moustapha Baye waaye Cheikh Rafaal Baye waaye Cheikh Rafaal Amadou Fall Seye Ndiaye mi ci njabi ma yaasin daawur mi ci mbul seexu naa mii mën naa woote lu ne soxna mi ñang jigéen ji sell ji bu liggéey mooy waajuram ñu di ko jooy te noppeeguñu doomi jàmbur ko gënal doom ji mu jur maam soxna mi ñang bu màggal dikkee wa seexu naa mi booba xelal bu dikkee ni ma maam man de sama yaay lu ma jëndalu du bajaar te séddale na ay dorobam ba mu jeex daan séddale mat ñaar fukki dorob màggal barkeb Cheikh Rafal yaa la gisee Cheikh Rafal kon kii su wootee day riis yaay ma ko liggéey dañ ne affaire bi ndey ci la waaye yaay ma liggéey waaw ku liggéey añ waaye lii mat du esaat waaw. jërëjëf sama yaay ngeen dégg kàddu yu yi nga xam ne sama yaay yëkkati na ko euh, ñu nekk fii ci li nga xam ne moom mooy kër gi kër sëñ Seexuna ci lañu ci lañu ci la ñu nekk ni ngeen gis tamit euh, sunu yaay sunu yaay ñi ngi noonu toog. ànd ci bis bi ànd ak sëñ Cheikhouna bisam bi nga xam ne moom lay defar Cheikh Rafal jigéen ñi ñoom it wane ci Pastef goo xam ne tey ñu ne duñ la ci bàyyi nga wéet dañ la ci gunge leen noonu ñu ngi noonu toog ñii xoolee ngi xooli ñii waasa ngi waa ngeen gis leen noonu sunu yaay yaay noonu jàpp ci liggéey bi ñu leen di wax ne ñu ngi fii ci Taïba Mbaye tey nag di la sept di la huit Euh, décembre ñu fas yéene jëme ko li nga xam ne moom mooy suba ci deuxième édition bi nga xam ne moom la ñuy defal fii Cheikh Rafal sëñ Cheikhouna di ko def fii ci Taïba Mbaye ngeen gis fii ñu nekk nii muy tey di tàkkusaanu ajuma ji fi la ñu nekk noonu ñi ngi noonu ñoom ñëpp ànd ak bis bi ñi ngi noonu ñoom ñëpp jàpp bàyyi li ñu jàppoon ci seen kër yi tey ñëw bàyyi seen i kër tëj ko ñëw toog fii ci ëttub sëñ Cheikhouna bi di ko jàppale bisu maam bi nga xam ne moom la woote fii ci Taïba Mbaye suñu yaay yaay ngeen gis leen noonu li nga xam ne tey moom mooy ba mbay ngeen di ah, kàddu yu ñuy sànni mooy di sant di gërëm di sant yi gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax bis bi li ñu am dafa yombul bis bi liñ ci am daa yombul ndax bi bis bu toll nii ñu indi ko ci dëkk bi ah kontaante lañ koy def ak mbégte di ci kontaan bu baax a baax a baax di ci def lu ñu man ak di jéem li ñu mën ak li ñu mënu di ñaan yokk ak wér ak wérle te di ko ñaanal ñu gën a yokk mu gën a jëm kanam liñ ci man lépp ñu di ko def ak lu nu mënul mënul ak mënul lépp ñu di ko jéem ñoo ngi sant di gërëm bu baax a baax a baax a baax sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf ngeen dégg sama yaay kàddu yi kàddu yu rafet la ngeen gis ba léegi ñu ngi fii ci li nga xam ne moom mooy ëtt bi euh, janoog sunu yaay yi nga xam ne teeru gan yi ñoom ñoo leen di teral gis ngeen leen noonu ba léegi ñuy gis ngeen noonu fu ñu ngi woote fii ci Taïba Mbaye di leen wax ne yéen a ngi ànd ak Gueoulart TV ñuy defal euh, li nga xam ne tey moom mooy euh, maam ja Cheikh Ibra Fall muy bis boo xam ne ngeen gis noonu ñu ngi noonu toog sunu yaay yaa ngi noonu toog di bis boo xam ne tey bis bu am solo la bis boo xam ne tey Taïba Mbaye yëpp yëpp xawaay bu am solo bi nga xam ne taxawal na leen ko fii ci ba mbay muy tabax taxaw boo xam ne tey taxaw léegi ñu ngi ci sunu yaay yi nga xam ne tey ñoom ñooy jàmbaar yi nga xam ne ànd nañu bis bi ak sëñ Seexuna bàyyi luñ ko ci benn yoon wéet ci ñu gis leen tey ngeen toog fii ci li nga xam ne mooy ëtt bi tey di ngeen kàddu nga ñuy sànnil tey ci bis bi xanaa kontaan lool nag ndax bis bi ni ko defee dañ cee bég ndax fii la yaayam jóge woon dem Mbàkke ah léegi nag mu del siwaat nag di bégal maamam Cheikh Ibrahima Fall fekk fi taalibe yu ko mat nag nu taxaw nag bëgg bis bi mu nekk ba nekk ay téeméeraat yu topp ni ko ni ko ñaanal ak wér ak wér la ak képp ko ànd ak moom yal nañ fi sunu borom yàggal saxal na fi man daal damaa bég maamam laa nag waaye nag damaa bég kontaan na lool yal na fi yàgg sëñ Seexu Naar yal na yàgg ak noonu. ci junni nag yàlla nañu koy jiitale na na mel ni ni Seex Béthio Thioune di jiitale ca Touba di dem ndax siggal nañu sagal nañu ndax kon woo ci Cheikh Rafaal rek dañ ko war a wuy te maamam rek a tax moom mooy woote kon sant nañ ko yàlla na dund téeméeri at ak ñaar fukk. jërëjëf jërëjëf gi ñu am ci bis bi nga xam ne moom la seen seexu naa defal maam ji fii nga gis leen ñoomit ñu jàpp ci ànd bërëb fa ñuy defee cant gi muy tànt ba fa la ñu nekk nii di dem ngeen gis euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu baas bi bi nga xam ne askan wi ñi ngi koy taxaw fii nga xam ne tey ji fii la gàtt yi nekk tey ñu dem xool fi nga xam ne tamit moom la ñu teg li nga xam ne mooy gàtt yi nga xam ne xéwal yi moom la fas yéene terale li nga xam ne xew suba ngeen gis ne nag yaa ngi noonu gëléem yaa ngi fii dara manqué wul ngeen gis noonu ngeen gis leen noonu ngeen gis euh, ñi ngi noonu di wàccee mooy deuxième édition bi nga xam ne moom la ñuy defal fii Cheikh Rafal sëñ sëñ Cheikhu naa di ko defal maam ju baax ja Cheikh Rafal ngeen gis noonu ñi ngi nii ci li nga xam ne mooy wàccaay gi tey nag euh, ñiy wàcce ñi ngi noonu di wàcce nag yi oto yaa ngi noonu taxaw oto bu nekk rek ñi ngi ñëw di wàcce nag rek ngeen gis euh, ni ko askan wi ànd ak ñoom liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey am na ñooy nag yi di leen wax ne yéen a ngi ànd euh, xam ne mooy penc mi fi lañ ko fas yéene defee ànd ak euh, garab amee ñu may la ko euh, comme nañ ko defee woon daaw rek consultation gratuite ñi ngi koy defee fii suba à 9 lay tàmbali ngeen gis ne noonu ngeen gis ngeen gis ngeen gis noonu li nga xam ne moom mooy. ñu ngi fii ci li nga xam ne fii la ñuy teg yi nga xam ne mooy nag yi ci kilifa sori ko jege nga ko jege nga ko jege nga ko day xëccu ñëwal ñëwaat. nii nii ngay génne eh, waaw ñu wax ne tey ji gëléem mi ngi door a mës ñëw fii ci li nga xam ne mooy ba mbay euh, sëñ Seexu naa andi ko ci bisu gëléem yaa ngi noonu gis ngeen gëléem yaa ngi noonu ñu jóge ci nag yi ñëw ci gëléem yi jóge ci ganaar yi ñëw ci nag yi ñëw ci gëléem yi jëm ci xar yi ngeen gis noonu ngeen gis ne sëñ Seexu naa fi nag yi nekkoon gis ngeen noonu gis ne mooy bis bu am solo boo xam ne bis boo xam ne tey sëñ ba mbay ngeen gis sëñ Seexu naa loolu lépp li nga xam ne tey gis nañu ne rek xam na ne teraanga rek tuutul ko ci fii ci li nga xam ne moom mooy wàccaay wi ngeen euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu organisation bâche yi ñi ngi toog ngeen gis fii ñu nekk nag mooy tant bi nga xam ne fi lañ fas yéene li nga xam ne moom mooy cant gi ki nga xam ne moom la ñuy defal ñoom ñoo fi nekk di ko liggéey ñi ngi ci liggéey di ko liggéey liggéey mucc ay ngeen gis ngeen gis ñu nekk moom la ñuy fas def li nga xam ne moom mooy cant gi ngeen gis e, fii tey taxawaay bu solo lañ fi taxaw ngeen gis ñi nga xam ne ñoom ñoo war yor wàllu sonorisation bi ña nga ca réglage yi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu orne li nga xam ne moom mooy tente bi ñi ngi ñoo yor wàllu lumière yi ñi yi ñi yor wàllu chaise ngi chaise yi ngeen gis ne kon préparation bi ñi nga xam ne ñi ngi koy def loo xam ne lu ndaw la loo xam ne tamit loo xam ne tuutal nañ ko muy bis boo xam ne bis Cheikh Rafal xam ne tey lii yaatal nañ ko dana xam ne tey fonk nañ ko ngeen gis noonu ngeen gis ñi nga xam ne ñoo yor wàllu organisation bi ñoom toog tey fii fas yéene jàpp ci liggéey bi señ bi tay ñu gis leen tay ngeen tok ci li nga xamne moy tante bi euh wacc di wacc li nga xamne tay mom moom lañu def fi muy tante nga xamne mom moom lañu cantal Cheikh Refal señ Cheikh na diko defal maam ju bax ja tay ngeen tok fi ngeen nek ci liggey bi tay yan kaddu nga ñi jox ci préparation bi nga xam yeen koy def fi tay ci bis waaw salaamaaleykum rahmatulah ñu ngi leen di ñep di ñaan sa borom defal nu jamm ñep ci liggey bi ñuy dugg sa borom may ñu dugg ci génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw liñ ci wax mom bari wut ndax liñ ci wax mom kenn ku ne am nga ci wal ndax liggéey bi Cheikh Rafal moom liggéey bi Serigne Touba la ca it ku ne xam na liggéey bi li mu li mu daj ci yoonam kon li ci des rek ci wax ju gàtt bañ a gudd mooy mboolem koo xam daal membre nga boo xamante ne nekk nga ci dëkk bi ak tund yi ba ci réew mi ba ci adduna bi yëpp bis baay ngi nii ñu ko gis Cheikh Rafal lañ koy defal ñëpp ci am wàll ñi ngi ci woo ñëpp comme ni ñu ko waxee rek kenn ku nekk rek noo ci mën a jàppe rek nañu jàpp ci ñun. ñu gis ñu gis nga ngay ngay ngay nekk ci si kar daaw nga jàng fi jàng yu am solo yoo xam ne dugg ñëpp tey lan lañ leen fas yéene xaare ci bis bi nga xam ne suba nga xam ne tey waaw liñ ciy taxawee moom comme ni ko taxawoon daaw rek mooy nekk ci liggéey bi bu matee ñu defaat xidma ci xasida yi waaw ba ba ba ba ko ni ko sëñ bi bëggee rek ñu defee ko noonu incha ba xooli jaam yëpp bëgg. tey bu ma la bëggoon a déglu lan nga ma yëkkatil fii ba mën koo dégg tey xam ne tey yaa ngi wàcc <laughs> waaw يبشرك الباقي بقت كرامة وإن كنت على أرض المدينة زانئي يبشرك الباقي بقت كرامة وإن كنت على أرض المدينة زانئي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يبصرك الباقي بقتي كرامة وإن كنت وإن كنت على أرض المدينة زاني waaw jërëjëf xam yëkkati na ko doore ko pour wan leen ne fi ku ko bëgg suba nga ñëw gër fi nga xam ne tey moom mooy nga xam ne sëriñ am ngeen xam ni yëkk wi fa tabaarakallaahu ak taraanga ji ci weer mi sel bi ak yi mu àndal yëpp sëriñ Ousseynou Gueye directeur Senico doomi sëriñ Abdoulahi Gueye Walda moo ko def ci digganteem ak sëriñ seexu naa waaye defal na ko diine ji ci journée culturelle maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina bokki julit yi gàtt yaa ngi yëkk yaa ngi gëléem yaa ngi nii xar yaa ngi ni ginaar yaa ngi ni picc yaa ngi ni lépp ànd ak ji sëriñ Seexuna ya salaam ànd ak ki bokkam ànd ak bokki taalibe yi ànd diina ji ñëpp wuy su ko ehi walan yahida sawa unil tamaani li ahmadal jeylaani awil tamaani li ahmadal tijaani sëriñ bi sëriñ Ousseynou Gueye Walda sa diggante ak moom nee na yëkk wi nii mu ko defee daal nee na ñoo ngi koy ñaanal nee na lépp lu diina di fay yàlla bu ci kenn ëppale Ousseynou Gueye nee na Ousseynou Gueye lii muy def Ousseynou yàlla rek tax mu di ko def nee na jëf te yàlla tax nag dafa neex lool ndax ku la fayul waaye yàlla fay la nee na kon moom ndëri lii Ousseynou jëf nag yàlla rek tax mu def ko ñoo ngi koy ñaanal ci yàlla. Ousseynou Gueye yal na yàlla sàmm la te yàlla suturaal la sëriñ bi nee na maag Ousseynou Gueye danoo jege lool ci ki nga xam ni ni ki nga xamee ni nag rakkam di bàyyi aale Gueye mu baax mi nee na bàyyi aale di xaritu sëriñ Seexuna ñu koy wax Pape Aale Gueye nee na tey jii mu nga ca Canada waaye waxtu wi daaw fu waay tourné jàkkaarloo Pape Alé Gueye nee na ci sama wet nee na waxtu wi daaw maa ngi ànd ak moom ren yàlla dogal fekk ko senegal nee na mu fekk ko bitim réew nee na Pape Alé Gor soosu waxtu wu nekk dañuy wax téléphone nee na ba nee na sunuy téléphone du coupé nee na kon Pape Alé Gueye na foofu nga nekk ci Canada sëriñ bi nee na ñoo ngi lay ñaanal borom parking bu mag bi la ngay wuti nag yàlla la lépp yomb danga nga del siwaat ci jàmm waaye Ousseynou mi nga bokk lépp nag ñoo ngi koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal jërëjëf ndëri sëriñ bi nee nga wax Ousseynou gis naa liggéey bi lee mu wàcc ci biir kër gi yaatu na yëkk waa ngi nii fa mu taxawal ak teraanga jépp na ni yoon ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa bu baax sant ñëw na ci teraanga ñi nga xam ne euh, moom lañ ko defal mu xool teraanga ji euh, àndat ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokki taalibe yi di wàññikuwaat ngeen gis ko noonu mi ngi noonu ci biir oto bi sëñ baa ngi noonu defal na ñaan ki nga xam ne moo ko jox teraanga ji tey ànd ak délégation bi nga xam ne tey ñoom ñoo koy gunge ci tournée bi nga xam ne moom lay def gis nga ko noonu gis mi ngi noonu